79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu góor ngóoraa tax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 waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di leen encouragé tamit euh, di leen ñaanal euh, fi ngeen bëgg a yegg quoi yàlla yeggal leen fa ngeen dem ba yegg si tele yu mag yi waaw ñu leen du dégg fu nekk waa di leen gis fu nekk parce que lii moom yombul quoi ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw pour lan rien que rek pour réew mi jëm kanam quoi askan bi tamit nekk ci jàmm quoi na ku dégg mbas bi tamit xam ni. musiba la boo xamante ne tamit yàllaa ko fi teg quoi du nit waaw ñun dañuy xam nga dañ jékki-jékki rek waaw dégg mbas bi nangam nangam xam nga mais bu doon fi la tàmbalee waa mais bitim réew la tàmbalee aussi quoi ñun xamuñu sax la xëy na respecté sanu njiitu réew mi ak respecté tamit euh, sanuy kàddu kilifa yi moo tax quoi ñu jël ñu fagaru bu baax a baax waaw marché tamit dafa doy waar quoi parce que dafa nekk ma loo xam ne ñi ñi fu nekk fay daje waaw ñi ñi fu ne la ñuy jugee aussi xam nga ñëw façon nit bu ne ñëw façon doomu aadama bu ne parce que dox dajale quoi mais tamit yàlla moo yor lépp comme moo ko fi wàcce ñun yàlla rek la ñuy ñaan quoi ñaanuñu mag yi ñaanuñu kenn waaw parce que mag yi moom si boppam sax ñun ak moom a yem ci mbas bi mënu ci tus mais yàlla mi nga xam ne moo ko fi wàcc moom la ñuy ñaan quoi mu jëlee ko fi si ni mu gën a gaawee waaw ndax bas moom la ñu dese ne gis nañ ay vaccin yu waaj a ñëw Sénégal pays dëkk yu bari ah, rejeté ko ne ñoom duñu ko def ndax jàpp nga ne yow vaccin yooyu bu ñëwee Sénégal di nga bokk ci ñu koy. non man moom lu baaxul ci sama réew moom du ma ko def man luy jëmale sama réew ëllëg kenam rek waaw loo xamante ni yow dégg rek laa ci am ay xam nga vaccin yi vaccin yi ñëw fii xam nga nangam nangam man dégg rek laa ci am ah. waaw gisuma dégguma mais mooy li ma wax rek man nit du jóge fële ñëw ni ma nangam rek ma accepté quoi waaw damay xool lii lu baax la ma def bu dee lu bon la ma moytu ko ko waa waaw ta man ñii jóge ci kaw naan ay di ñëw fii naan ay dañuy vacciner nit ñi ak ñooñu man gëwuma leen waaw man li ma gëm daal moytu xool li nga xam ne tamit moo may yokku quoi moytul ma mën a lu bari musul mu musal ma ci lu bari loolu laay appliqué quoi waaw mais man ñooñu waxuñu ñu moom. ñu gis ni yaa ngi ci marché bi te ku wax marché wax dajaloo ndax nit ñi tamit respecté wuñu li nga xamante ne mooy mesure yi naka ñu gisee moom dëgg la moom dëgg yàlla fii moom ñoo ngi moytu bu baax a baax xale yi ñëpp a ngi takk seen i masque man mii dama xam na may jaay damay teg sama eau de javel teg sama omo suma ma paree raxasu dëgg yàlla di ñaax ñëpp nag ginnaaw yàlla moo ko fi teg ñi ñaan yàlla yàlla mi ko fi teg rek yàlla na ko fi yàlla jëlee ak mboole mu jullit te di leen yóbbante nag si président bu fekkee mi ngi may dégg Macky Sall nee ko am na maire buy jaay fee ndékki nee ko kër laa soxla kër. incha allah waxal jar sa jarbaat biy jaay fee nee na kër la soxla kër son naa ci luyaas bi. metti na lool nekk na ma gestu. dina ci dina ci indi saafara ah, ñu gis que ne dëkk yu bari dañoo rejeté yi nga xamante ne mooy vaccin yi ñu génne ci Covid bi ñu ah, ñorti que ni dina egg ci Sénégal ndax ba see Sénégal yow di nga a ah, bu dee lu baax la kay nañ ko def rek mm. bu fekkee baax na ah nan na ñëpp vacciné wu rek. Eh, lu tax dal dalul askan wi seen xel ndax nee nañu vaccin bi diir bi ñu ko bi ñu ko kii dafa gàtt te vaccin du noonu nekkul ay ay ay weer rek lañ koy créer pour nee dañuy vaccin. ah bu fekkee baax na daal baax na bu dee baax na daal moom ah nan teg ci lépp ci loxoy yàlla rek nan teg lépp ci loxoy suñu boram rek yàlla moo yor lépp yàlla mi aar daal yal na yàlla aar ak mboole mu jullit. d'accord ñu gis ni que ni marché bi ak dajaloo bi ah kenn respecté li nga xamante mooy mesure barrière yi naka nga jàngatee lool waaw mais mbas bi moom nattu yàlla la feebar la nattu yàlla la yàlla mu ko fi wàccee quoi ñu ñaan yàlla mu dem ak jàmm rek ku nekk respecté ay say constitution waaw ñaan yàlla yàlla génne ko fi ak jàmm waaw mu dem yoonam daal ci barke Seydina Mohamed ak mboolem jullit daal waaw ñëpp wér daal. d'accord bu mbas mi commencé ba léegi ñu ngi naan am na ay vaccin yuy waaj a ñëw ba dëkk yu bari ñoom dañoo bañ vaccin yooyu ñu dégg ni vaccin yi ni nga waaj a ñëw ndax su ñëwee yow di nga vacciné waaw ah, mais vaccin yooyu kay mais ku nekk bu ñëwee tamit ku nekk li boo wóoloo nga vacciné ku boo wóolul tam bul def waaw man man moom man moom maa ngi euh, maa ngi dépendre si si euh, situation am lu ñu def population am def population bu ñu wóoloo ma jël bu ñu wóoluwul du ma jël waaw waaw bu population bu wóoloo ma jël bu ñu wóoluwul du ma jël waaw parce que waaw waaw bu ñu wóoluwul du ma jël parce que man tam euh, ño xam nga rek ci ñoom laa dépendre daal waaw mbooloo mooy doole quoi man mbooloo moo mbooloo mooy doole ko waaw salaamaaleykum yaay booy ñu ngi lay nuyu maa leen di fay nga ñëw si marché bi dam daf sa kay du dox sa quelques courses waaw maa ngi ñëw dox sama quelques courses voilà tey naka nga gisee marché bi ak mbas mi ndax ñu ñuy jàpp nga ne ñu ngi respecté li nga xamante ni mooy mesure barrière waaw ñu ngi koy respecté de dëkk la moom ñu ngi koy parce que ñu ngi takk masque man sama ay sama masque mu ngi nii ci biir waaw fekk dama ko dindi léegi rek ko léegi rek mais mën naa ko takk waaw waaw léegi ci mbas mi la ñuy dese nii ba tey ndax gis nañu ah, am na ay vaccin yoo xam ne ñeneen génn na ba dëkk yu bari dañoo commencé di bañ yooyu tey jii ñu dégg que ni mi ngi waaj a dugg ci Sénégal ndax bu duggee ci Sénégal vaccin yooyu yow yaay di nga ko jëfandikoo ah man vaccin yooyu xaw ma ko di ko jëfandikoo xaw ma ko parce que xaw ma nu muy demee mais dégg naa ñu naan baaxut waaw moo tax mais nag xaw ma xaw ma lu si nekk waaw. doo vacciné. non non du ma vacciné wu sama doom du ko vacciné ah waaw. maa leen di fay soxna si. Ah, nga nekk ci marché te ku xam marché xam ne dajaloo dafay am ñu nekk ci deuxième vague maanaam mbas mi continuer di def ay jéey ba tey ndax yow eh, ak euh, mbas meek corona bi naka nga koy dundee ak euh, marché bi. waaw marché bi ñunt ñu si jàmm la di sant rek mbas bi mu fi wàccee ba léegi ñu ngi jël suñu matukaay quoi di di séparer nit ñi ak nit ñi ni ñëwee si marché bi dañuy jël seen matukaay parce que ku si client yi dañuy jëlaale seen masque takk même miy jaay sax dañuy takkaale masque affaire yooyu ay wax jaaykat la gis nañ marché bi xaaj bi ñëpp kenn takkul masque mais bref euh, yow léegi ñu gis ne que ne euh, mbas mi euh, dañ dafa tax ñu indi benn vaccin ah ndax yow vaccin yooyu su ñëwee di nga vacciné yow. vaccin moom yooyu moom bala ma koy vacciné faaw ma faaw ma def analyse ba pare doog si dugg parce que doo ñëw rek bëgg ma vacciné si gratuite non non damay bañ lool loolu moom dama ko nangu moom. lan moo waral lool dafa dalul sa xel wala. déedéet dafa dalul sama xel waaw parce que bi mu fi duggee ba léegi dalul sama xel daal waaw. kon ku baax ñu ngi lay nuyu. oui ñu ngi lay delloo siyaar soxna si. mën nga ñu fàttali tur bi ah. waaw maa ngi tudd Assane Dione. Assane Dione gis que ni mbas mi dafa dugg ci suñu réew mi am fi doole bu baax ba nan bañ naan sax lii di deuxième vague mi ngi fi. Euh, yéen ngeen nekk ci marché bi te ku wax marché ku wax marché wax dajaloo nit ñi dañ fiy ñëwee euh, naka ngeen dundee ndax yéen a ngi respecté li nga xamante ne mooy mesure barrière. oui ñoo ngi koy bu baax. oui daa yi mu toll nii mooy loolu noonu ku gis ni ñu toogee rek nga war a xam ne fi mu toll marché bi moom métti na trop ndax daa yi dangay toog suba ba ngoon daanaka booy xool doo soxla ko sax mooy loolu. waaw sama masque yow. sama masque mi ngi nii sama poche ma teg no xam rek mu nekk sama biir place moom. damay daal di tekki masque mais su ma génnee di dem di mel lu jéggi tëri damay teg sama masque. ci ci mbir moom la ñu ñëwee ci mbirum mbas mi ñu gis que ni ay vaccin mi ngi commencé dugg si euh, dëkk yi ba yu bari commencé di ko bañ ndax yow bu dugg see Sénégal ah, vaccin yooyu di nga ko vaccin non loolu moom du ma ko def moom. tax non que booy def dangay xam li ngay def lan la doon. aduna tey dafa dafa tëral noo xamante nii looy def rek nay leer sa côté quoi ba tax na loolu noonu bu ñëwee man du ma ko nangu te ku te ku te ku may déglu doo ko nangu quoi. non waroo koo mën a nangu non dalul sama xel ndax parce que tubaab yi moom mel na ñoo xamante nii tey boo duggee seen côté rek mën nañ laa tromper